بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala bi iznillah tey ñuy jël ñaari aaya ci suratu nisa aaya 13 ak aaya 14 ñaari aaya yi nekk sunu kanam borom bi tabaraka wa taala mu ngi ciy jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy bayaanu xurmatu taaddi xudud allah mbokk yi ñun ñëpp nañu ànd xam ne di xët di jalgati frontière yàlla yi dafa xaraam borom bi tabaraka wa taala dafa rëdd aw rëdd ne bu ko kenn jàll bu ko kenn jalgati borom bi santaane ñu jaamu ko waaye tere ñu bokkaale ko santaane nañ ko topp tere nañ ko mooy rëdd aw rëddëm joxoñ doomu aadama yépp ne leen yem leen fii bu leen yegg si fii kon kuy jullit di wax ne gëm na yàlla bëgg na yenent li jaadu ci moom mooy fi yàlla rëdd ne bu mu fayeg si bu mu fayeg si loolu danañ ko jàng tey ci aaya bi nekk sunu kanam danañ jàng bayaanu sawaabu taatullahi wa rasulihi wa huwa alxuludu fi ljanna danañ jàng mbokk yi tey ne tiyaabay ku topp yàlla ak yonent du nekk dara lu dul ëllëg bu faatoo yàlla dugal ko aljanna mu sax fa dootul génnee si kon gis ngeen njëriñu topp yàllaa ko yonent li gën a rëy ci tiyaaba yi ki topp yàlla di am ak topp yonent mooy dee dugg aljanna loolu rek mbokk yi doon na doy ñu war a rey sunu bopp sax ci topp yàllaa ko yonent ndax topp yàlla ak yonent tiyaaba yi bi gën a rëy mooy lan dugg aljanna waaye dugg aljanna waaye alxuluub sax fa sax dàq dee sax du la fa fekk dootoo dee waa aljanna bu duggee aljanna comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee dañuy indi dee ba ci buntu aljanna ñu ne yéen waa aljanna lii lan la ñu ne lii de dee la ñu ne lu ngeen ci wax ñu ne rey leen ko ndax su ngeen ko bàyyee mën naa mu fekk ñu fi génne ñu kon rey leen ko ñu daal di ren di dee waaye buñ ko yóbbee ci waa safara ñu ne leen lii lan la ñu ne dee ñu ne lu ngeen ci wax ñu ne bàyyi leen ko bu leen ko rey lu sax parce que mu ñëw fekk leen foofu rey leen ndax ñu génn xoole ñii dañoo bëgg mu dee ñii bëgguñu mu dee waaye yàlla da koy indi ba diggante aljanna ak safara ñëpp di seen mu daal di koy tëral ren di ko daal ne yaa ahlal janna xulu bila mawt yaa ahla naar xuluud bila mawt yéen waa safara sax leen dootu leen dee yéen waa aljanna sax leen dootu leen dee parce que rendi nañ dee dee dootu la amati loolu moo tax mbokk yi tiyaaba yi gën a rëy ci ki topp yàlla topp yonent di am mooy duxulul janna danañ ci yàlla boole ñetteel mooy bayaanu jazaul maasiya maasiyatullahi wa rasulihi wa huwa alxuluudu fi nnaar wal azaabul muhiin fihima waaye ni taraa ngay topp yàlla ak topp yonent di nekkee aljanna loolu lay nekkee fay ku mooy yàlla ak yonentam sa fay mooy lan mooy da ngay sax ci safara dootoo génnati waaye bu doon sax ci safara rek jàmm la waaye yàlla tabaraka wa taala dina la dugal safara nga sax fa waaye dina la mbugal mbugal mu doyati lu ko waral mooy ñàkk a topp yàlla ak ñàkk a topp yonent bi mu ne haasal xuluud sax bii nga xam ne dina ko sax ci lenn ci ay nit yu dem safara lu ko waral kaanat nekk na liman kaanat maasiyatuhu mukaffarun lahu mu ne mooy ki nga xam ne ay bàkkaaram kenn baalu ko ko kooku day sax ci safara amma bu fekkee ki nga xam ne ay bàkkaaram baal na baal nañ ko ko mu ne kooku moom du sax ci biir safara amaana mun na fa romb waaye mun na faa bañ a sax waaye mbokk yi dëgg-dëgg ab julit moom lu mu war a ñaan yàlla sax bu mu gis safara la war a ñaan waaye léeg-léeg nga dégg ay nit yu texee ji naan safara mooy gën a neex aljanna man bu duggee safara sax mooy li ma gën a léeg-léeg nga dégg ñu ne non safara moo gën a neex parce que soirée yi fa lay nekk parce que diw ak diw di lim ay turam diw ak diw ak diw ak diw fa la ñuy nekk quoi ñuy tëgg soirée yi xam nga loolu yëpp xeetu texee di ku texee di rek mooy wax loolu ku texee di wala ku texee di mooy wax ñun bu diw duggee safara sax ñun dinañ ànd ak moom dugg ku texee di mooy wax loolu mbokk yi yàlla na yàlla musal ci loolu ixwaan yi lama bayana taala ma shaa min ahkaami shari wa hududu diin asaara ila dalika bi qawlihi tilka hududullah bi yàlla leeralee li ko soob ci ay atte ci sharia ci diine ci lañu yàlla joxoñ nañu lii kat mooy samay frontière bu leen ko jegee al hudud jambu hadd wa huwa zarfu makan yumayizu an makani akhar yumna tajawuzuhu nee na baat bi di yàlla wax ne mooy al hudud nee na mbooloo la benn bi hadd la nee na day leeral place barab lay leeral day ràññee barab ak beneen barab waaye barab bi muy leeral fii mooy barab bi yàlla ne bu ko kenn jege mooy ay frontière u yàlla frontière u yàlla nag mooy lan mooy mahaarimahu mooy li yàlla tere maanaam yàlla li mu tere la ñu rëddal ne bu ñu ko jege bu ñu ko def kon mbokk jullit yi ñaari aaya yi moom la ñuy jël bi iznillahi tabaraka wa taala ñu ñaan yàlla mu def ci ñun dégg ak topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يقول المولى بربي وحنا ci Qur'an fukki yoon ak ñeent ne li mooy sama frontière bu leen ko jege tilka hududullah baatu hudud yàlla wax na ko quatorze fois ci alquran loolu la borom xam-xam yi tuddee hadihi l ayat al xutuutul xamra ñu ne aaya yi yàlla wax muy 14 aaya ñoom ñooy ligne rouge ay rëdd yu xonq yoo xam ne yàlla dafa tere ku ko jege yàlla li mu rëdd ne bu leen ko jege ñëw na ci alquran fukki yoon ak ñeent juróom-ñaari yoon ci suratul baqara aaya bi ci njëkk mooy tilka hududullah fala taqrabuha aaya 187 ñaareelu aaya mooy illa an yaxaafa an la yuqima hududallah 229 maanaa ci 229 boobu yàlla répété na ci répété na ci aaya boobu ay yooni yoon bokk na ci fa in xiftum an laa yuqiima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bi ba tey ci 229 bi la nekk wa man yataadda hududallah fa ulaika hum zalimun ba tey ci 229 bi la nekk lépp ci baqara la nekk tilka hududullahi fala taataduha ci 229 bi la nekk ba tey ci baqara ci aaya 100 230 borom bi wax na fa aaya bi ne tilka hududullah fala taataduha fala junaha alayhima an yatarajaa in zanna an la yuqima hududallah boobu mooy aaya 230 yëpp ci baqara ci suratu nisa yàlla wax na fa aaya yi ñaari yoon ci aaya 13 tilka hududullah wa man yuti illah wa rasulahu yudxiluhu jannat ñaareelu aaya mooy wa man yaasi llaha wa rasulahu wa yataadda hududahu yudxiluhu naaran xaalidan fiha 14 suratu nisa ñaata aaya ko ak sadi waaw borom bi wax na ko ci suratu tawba 97 mu ne al arabu asaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an laa yalamu xududa ma anzala allah ñëw na ba tey ci suratu tawba boobu aya 112 wannaahuna an ilmunkar walxaafizuna li xududillah wa bashir ilmuminin waaye mbokk yi ñëw na ci suratul mujadala suratul mujadala mooy wan saa zalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah kooku ban aaya la aaya kat ñëw na ci suratu talaq ñaari yoon laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yaatina bi fahishatin mubayina wa tilka aaya 1 ñëw na ci aaya 4 ba tey ci même aaya bi même saar bi mooy aaya 1 ak aaya 2 soo ko boolee muy fukki yoon ak ñeent yu yàlla di baamtu baam baat yi moo tax borom ba xam-xam yi ne aaya yi ñooy xutuutul xamra ñooy ligne rouge yu yàlla teg baaraamam ne fii bu fa kenn yegg si kenn ngeen si mbokk yi aaya yi di xududullah frontière yàlla ci place yi mu ñëw ci alquran yépp ñeenti mbir dong lay leeral ñeenti mbir bi ci njëkk mooy bayaanu ma yaxilu lil muslim fi laylati siyaami min rafas wa taam wa shurbi wa adamu mubashara xaalal itikaaf fil mas fil masajid ba mu baqara la nekk su ko yàlla njëkk a wax lan la fay jàngal nit ñi mooy leeralal leen lu war ci guddi weeru koor am na ñoo xam ne guddi weeru koor daawuñu jege seen soxna yi ndax jàpp ne dafa araam yàlla wàcc aaya yi di leen leeralal ne koor timis la yow keroog laay dégg vendredi laay dégg ñu ne ma am na ñoo xam ne ci Sénégal dañuy woor ba géey ah ñooñu di woor ba géey fan lañ jële seen gée boobu ñu ne ñooñu duñ toog timis de ma ne lu tax ñu ne noo ñoom gée allahu akbar waa kan moo ko jàngale yonent bi de moo doon jàngale nu ñuy jaamoo yàlla moom dane woor leen bu timis jotee ngeen dog bal sax dafa soññaate ci teel a dog bi dafa bokk ci sunnaay koor teel a dog yéexe xëdd ci sunna yi la moom su xëdd jotee da ngay yéex arrièreal heure bi su ndog jotee nga teel a dog bal yonent bi sax dog da koo intéressé woon ba day jël ay nit yëgloo leen ci tàndarma yi pour ñu xoolal ko ndax jant bi solo moo tax dina ma yéem trop instant yi bu ñu gisee ay nit di wax ne seentu weer kenn waru cee utiliser ay appareil dañ ko war a xoolal suñuy bët ah yonent bi de moom weer da koo yitteloon ba muy sant nit ñi ñuy yéeg ci yu kawe ba yéeg ci garabu tàndarma yi di ko xoolal weer wi dugg jant bi sono wala sow kon su fekkee woon tey sikki nekku ci ne jumtukaay yi nga xam ne dina ko wax weer waa ngi ci asamaan bi wala fekkewu ko wallaay dina ko jël parce que ay adawaat la wallazi xalaqa lakum ma fil ardi jumtukaay yi ñoo ko moom ni ñu jëlee yëre yi jël montre yi takk weer yi jël oto yi pour ñun la pour kan la jullit yi la jullit waruñu tëj seen xel yi jàpp ne du ñu avancé déedéet kenn waru ko def dañu war a ubbeeku dem ci kanam waaye ànd ak suñu diine lim ñu ci daganal ñu jël ko lim ñu tere ñu bàyyi bañee def suñu idée yi ay idée arrêté aaya yi dañoo wàcc di leeral yooyu ci baqara mbirum koor mbirum sëy guddi weeru koor mbirum lekk kañ la war a tàmbali kañ la war a yem naan bañ a jonjoog jigéen ñi boo nekkee ci itikaaf di jàkk ci fukki fan yu mujj ci weeru koor itikaaf kañ lañ koy def ci weeru koor ci fan ci fukki fan yu mujj ci weeru koor lan mooy itikaaf itikaaf mooy lan mooy fukki fan yu mujj ci weeru koor nga dem te jàkka ja dëkk doo génn ndeysaan maa ngi koy jàngal xale yi jeudi jeudi maa ngi jàngal sama classe xadisu yonente bi alayhi salatu wasalaam ndeysaan bi mu naan inna shaytan tajri ala ibn aadama majra dami lan moo waraloon yonente bi xadis bi yonente dafa def itikaaf ci jàkka ji soxna safiya daal di ñëw ziyaara si yonente bi ci jàkka ji parce que yonente bi amatul droit génn këram dem jàkka ja dem këram dem génn jàkka ji dem këram soxna safiya ñëw ziyaara si ko waxtaan ak moom lu tolloog heure ci jàkka ji mu génn di ko gunge xaw na guddi ñu ñëw ci buntu jàkka ji am ñaari ñaari ñaari saxaaba yu dëkk Médine ñu daal di romb ñu rombee yonent bi ñuy dox di gëstu yonent bi leen eh ñu taxaw mu ne kaay leen yow mu ne leen soxna Safiya la ñu ne subhanallah ah yow yonent yow tamit ah yow yonent bi ne déedéet inna seytaan tajir alam nu adama majara dam seytaane day daw ci yaram doomu aadama comme deret bi ni muy circulé su ma leen bàyyee leen nga dem lu ngeen di wax bu doon yow la fii looy wax nga gis imaam mu ànd ak benn xale bu jigéen guddi xooloo ndax doomam la xooloo ndax jabaram la xooloo ndax nga dem rek waaye yow imam maa gis dama muy gérer ànd ak benn booy loolu yonent bi doon bañ moo tax mu bëgg leen mu bëgg a setal setal njort ci ñoom mu ne leen kaay leen ñëw mu ne leen soxna safiya la safiyatu bint xuyey leen moom la ñu naa mu ne leen déedéet seytaane day daw ci yaramu doomu aadama waaye aaya yi dañoo ñëw pour leeral aaya yu njëkk yi première catégorie bi dafa ñëw ci yàlla loolu yàlla di wax ne tilka hududullah ñaareel bi dafa ñëw bayaanu ahkaamul alaqa azawjiya min talaq wa rajaa wa xulaa wa zihaar yeneen aaya yi dañoo ñëw di leeral relation góor ak jigéen ci takk ba ba ci tas ba ba ci buñ koy delloo ba ci ndaw si buy simmeeku ba ci bu zihaar amee aaya yooyu dañoo ñëw di leeral lenn ci ay àtte ci sëy ci fase ci delloo si waa ndaw si waaye ci ndaw si bañ a delloo di summeeku ak bu ci zihaar amee ñetteelu place bi aaye dañoo ñëw di leeral miraas yooyu mooy yi jël tey tilka hududullah wa man yuti illah wa rasula yudxiluhun jannatin tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha wa zalika al fawzul azim aaye dañoo ñëw di leeral lii mooy aaye miraas yi dañoo ñëw di ko leeral kon yii nii ñetteelu place bi ci la tool ñeenteel bi ci aaye yi dañoo ñëw di leeral mbirum santaane yàlla tabaraka wa taala nuñ ko war a toppee ak nuñ ko war a bàyyee kon mbokk yi aaya yii di tilka hududullah wax naa leen sànq ne yàlla wax na ko ci alquran ñaata yoon wax naa leen ci saar yi mu nekk ci baqara rek nekk na ci sept fois ci nisa nekk na fa deux fois ci talaq nekk na fa ci tawba waaye ay li ñuy bari bari bari borom xam-xam yi ñeenti xaaj lañ leen xaaj yenn yi dañuy jàngale koor li ci war guddi koor yeneen ñi di jàngale relation ci sëy góor ak jigéen yeneen jàngale àtte miraas yeneen di jàngale àtte santaane yàlla tabaraka wa taala su yàlla santaane jëfe bu ñu ñëwee ci texte aaye borom bi tabaraka wa taala mu ne tilka waaw lu xew fii ah lu xew ci saat bi jeexagul ah yuuxu nañ tey ak doole rek tilka la la ngeen di seen di ko dégg ñu ne ah mu ne xuduudullahi frontière yàlla la rëdd wu yàlla rëdd la yemloo fa nit ñi mu leen di leeralal rëdd yooyu min ahkaam ci ay àtte an nikah sëy wa kafalatil yatim lu ñu yare jirim wa tahrimi aklil maalil yatim di tere lekk alalu jirim wa qismat tarakaat ak séddale alalu miraas mu ne wa hududullahi hiya ma xadda lana wa bayyanahu frontière yàlla mooy fi yàlla rëdd na nañ fa yem ñëw na ci xadis xadis baa ngi ci arbauna annawawi xadis bu mu tëre xadis baa ngi ci arbauna annawawi alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahuma umurun mustabiha li dagan yàlla war na leen mu ngi nii dagan na li araam yàlla araamal na waaye diggante bi am na ay mbir yu lënt mu ne bu leen ko jege bu leen ko jege mu ne la la ngeen di seen nag frontière yàlla la nit du deñ di langar langari di langar langari ba jege frontière yi waaye mu ne cëy ku ko xët mu ne ala inna hududullahi maharimaha frontière yàlla mooy li mu tere yàlla li mu rëdd buggul ku ko jéggi ku ko jéggi soldat yi Sénégal bu ñu xëttoon frontière benn dëkk luy xew kon ab julit warul xëtt frontière yàlla mu ne la ngeen di seen frontière yàlla tabaraka wa taala la moom la leen yàlla rëddal wax leen li dagan ak li xaraam wa harrama alayna alxuruj anhu taaddi lahu yàlla tere ñu ñu xëtt ko waaye yàlla tere ñu ñu dem ba ca frontière ba ne fa faax toog borom bi ne képp ku dégg sama ndigal ba yegg si woo ci frontière bi wa man yuti illaha képp ku topp yàlla wa rasulahu ak yonentam yudxilhu yàlla dina ko dugal jannaati ay aljanna yoo xam ne tajiri dana daw min taxtihaa ci suufam al anhaaru ay dex ñooñu buñ duggee aljanna lan leen yàlla defal mu ne xaalidiina fiiha ñooñu dañ fay sax éternellement wa zalika lii nag al fawzu mooy texe al azim bu mag bu rëy nekk dugg aljanna mooy texe fa man zuhziha ani naar wa udxila aljanna faqad faaz yàlla nee na képp ku ñu sori safara dugal aljanna rek yow texe nga allahu akbar nekk li gën a rëy ci taraanga ci kaw suuf mooy doomu aadama nekk fi jaamu yàlla mu dee yàlla dugal ko aljanna yonent bi alayhi salaatu salaam bu mu ñuy misaal aljanna ne ne fiha ma la aynun raat wala uzunun wala xatara ala qalbi ashad aljanna la fa nekk ci xéewal ci neex yonent nee na nopp musta dégg lu mel noonu bët musta tegu lu mel noonu yonent bi nee na ki gën a ki ëpp jafe-jafe ci àdduna ki nga xam ne bu xëyee soom bi bu amul suukar lay ndekkee xanaa bu amul suukar duñ xalaat soow moom lay dundee juróom fukki at moom lay ndekkee di ko añee di ko reeree kooku de kon kenn xalaat ci moom lix lu tax ndax ñàkk moo ko yóbbee loolu waaye mu ngi jaamu yàlla yonent bi ne mu dee ñu ubbi buntu aljanna rek daal di koy dugal génne ko dañ ko ne dugal mu dugg ñu xëcc ko mu génnaa ñu laaj ko benn laaj ne ko ndax mos nga am problème mu ne giñ naa ci màggaayu borom asamaan ak suuf mosuma am problème te dañ ko dugal génne ko yonent bi ne ki gën a noos ci àdduna nga xam ne musta am problème mën nga ne yàpp lay ndékkee moom lay añee moom lay reere du dox ak tànkam oto moo koy yóbbu lu mu bëgg rek réglé nañ ko waaye nag mi ngi mooy yàlla yonent bi nee na dañuy ubbi safara dugal ko génnewaat ko ne ko nag mos ngaa noos mu ne giñ naa ci bàggaa yàlla mosuma noos moo tax mooy ñaari kër yi ñoo bokkul kër gu ci nekk ay nit ñoo fay dem waaye lan moo leen fay yóbbu ay jëf ay jëf ñee bañ leen dugalee ci kër ga dañ leen ne kulu washarabu hani an bi ma kuntum taamaluun lekk leen naan leen noos leen lii ngeen am tey yéen yéen a ko jëfoon bi ma aslaftum fil ayamin waaye wa amma man uutiya kitaabahu bi shimaalihi fa yaqulu ya laytani lam uuta kitaabiya walam adri ma xisaabiya yaa laytaha kaanat alqaadiya parce que moom tam moo ko liggéey kon déggal yàlla bañ a xët frontière am dégg ay ndigalam sori ay tereem lan lay jural jullit mooy yudxiluhu yàlla dina ko dugal jannaat ay aljanna allahu akbar ay jardin yoo xam ne tajiri day daw min taxtiha ci suufam al anhaar yaa na loolu gisagu leen ko fii de kër guy daw ci ndox am na waaye li ngeen ne bato boobu bato buy daw ci ndox waaye yàlla ay jardin ay kër yoo xam ne ëllëg ci ndox mi lay daw ndeysaan wala yàlla di fay ñi topp yàlla topp yonent looloo tax topp yàlla topp yonent rek lañ santaane ci diine amul keneen nga am na weneen du ati allah wa atiu rasul gis nga wa man yuti illah wa rasul wa man yaasi illah wa rasul wa man yushaqiq illah wa rasul loolu rek moo ci am topp yàlla ak yonent amul keneen sa ndey ak sa baay sax waxuñu nga topp leen dañ la ne wa in jahadaka ala an yushrika bi ma laysa laka bihi ilmu yàlla nee na boo nekkee sa ndey sa baay liggéey ak ñoom topp leen di def ci ñoom mbaax ñu jékki-jékki bëgg laa bokkaale loo yàlla bañal bu leen topp waaye adduna bi moom àndal ak ñoom ànd bu rafet bu weer dee dana ration indi boo xëyee nuyu leen balaa ngay génn kër gi boo wàccee nuyu leen balaa ngay dugg sa néeg waaye nag foofu ngay yem lu baax rek ngay def ak ñoom waaye dootoo leen topp pourtant ñoom ñaar ñoo la jur benn sëriñ bu tudd Yunus mu ne min jiilima alquran hamin tampi min donki heen yiide yo ceerno ma ɓurana yumma e bamba hmm? mu ne alquran 114 saar la wër nañ ko ci kaw ba ci suuf gisuñu ci sa sëriñ ne la gënal sa ndey sa baay loolu gisuñu ko ci alquran bala am nañu sa sëriñ ne la gënal sa ndey ak sa baay ban aaya la fii sëriñ yi ñoo gënal nit ñi seen ndey ak seen baay da ngay gis ku bàyyi bàmmeelu papaam tabaxu ko mu dem di tabax bàmmeelu sëriñ bi maa ngi gis koo xam ne du bàyyal papaam te bu sëriñ bi wootee mu dem bay am na ci ñun ñoo xam ne fii bu leen seen papa waxoon eh raxasal ma oto bi nga naan nga ni i bu la sa yaay ne woon tuural ma mbalit ah oto mbalit bi ñëwee na nga jël paanu mbalit bi tuuyi ko ne leen da ngaa waaw mère yow mère xam nga li ngay wax mais est-ce que xawal nga ma boo demee ci kër sëñ bi kenn du la ko wax yaa ko yéen tuuri bëgg ñu ne da ngaa baax wala ana diine te ñetti aay yi ñoom ñooy ànd atiu llah wa atiu rasul wa bil walidayn ihsan aqimi sala wa ati zaka aay yi ñooy ànd yàlla fu mu ne topp leen ma danaan topp yonent bi fu mu ne julli leen mu ne joxe leen asaka fu mu ne ndey mu ne ak bàyyi mu ne def leen lu baax ci ñoom ñun nag léegi dañuy bàyyi suñu ndey ak suñu bàyyi def leneen lu ñu sant te topp yàlla ak yonent dong la ñu sant amul leneen ci alquran topp yàlla topp yonent amul leneen te yàlla ak yonent dong dong dong la ñuy laaj ëllëg amul keneen fii nag boo waxee yàlla ak yonent ñu ne yow non yow da nga normal loo de yow nga ni lan ngay topp yàlla kese kese kese kese kese kese ah loolu wóorul de yàlla ak ak foog ak loolu moo tax nit ñi mënuñu am pas-pas bu wér ku yàlla doy yonent doy la lan moo lay doy leen dootu la doy et puis ab julit su ko yàlla ak yonent doyulee lan moo lay doyati ci àdduna su la yàlla doyu ak yonent lan moo lay doyati su la yàlla mënut la def loo yonent mënut a def loo kan moo lay def loo ba nga def mu am njëriñ dootu am njëriñ yàlla ne ku topp yàlla topp yonent wa man yuti illaha la wax képp ku topp yàlla wa rasulahu ak yonentam yudxiluhu yàlla dina ko fay dugal ko ëllëg bu faatoo jannaat ay aljanna tajri yu daw min taxtiha ci suufam al anhaar ay dex dugal aljanna neex na trop waaye xoola xaalidina fiha yàlla nee na ñooñu dañ fay sax éternellement dootuñu dee lu tax dootuñu dee parce que dee amatu rey nañu dee indi nañ ko ba seen kanam wala leen ko ne leen dee ngi nii rey nañ ko dootu leen dee sax leen xuluut ndeysaan allahu akbar foofu la waa aljanna di yuuxu di zibile waa safara di jooy di toroxlu lu ko waral mooy ñii dootuñu génn ñii dootuñu génn foofu la ñuy sax yàlla ne wa zalika li al fawzu mooy texe al azim boo déggee texe fii ci Sénégal kan mooy ku texe ku tukki allahu akbar gis bi nga daggee billet teg sa tànk ci buntu avion bi billet bi nekk billet Italie wala Espagne wala France wala Amérique nga dégg sa xarit yi nga bàyyi ginnaaw ñu ne booy bi texe na noo rëcc na waaw texe na waaw texe dem Amérique rek texe génn koo àddina bi de Amérique yaa ngi naa rek allahu am na ñoo xam ne moom defuñu fu ñu dëkk muy nit muy muy dëkkuwaay wala rek gaal yi ba léegi nit ñaa ngi dee jusqu'à présent nit ñaa ngi dee lu ko waral mooy fa ñuy dem ñooñu dañoo nangu nekk ay nit rek liggéey wala est-ce que ñooñu dañuy da ngeen faa gis yi yii yii yii di football trois heures ci bëccëg ba minuit loolu dafa am France est-ce que nawetaan am na France nee nañ football anglais ñoo ko créé est-ce que nawetaan am na foofu di football ba deux ba trois heures du matin lii am na foofu di yuuxu rek heure bii dañu ne woon nawetaan alaysa kazalik dañu ne woon nawetaan ah nawet bi jeexul beneen bi may xoolal ñi football fii yëpp ba nawetaan bi jeex équipe bi jël coupe bi coupe bi lan la or la xaalis jamaana coupe bi lan la coupe bi lan la benn weñ boo xam ne boo ko bàyyee trois jours mu xamaat we weñ yi commencé cee dem àll ba weñ yi ba dootoo ko xaalis wala amul benn jëriñ ñu jël benn weñ kuppati ko loolu lañ leen di jox ñi football weeru xoolal ñetti weer yi ñeenti weer yi juróomi weer yi nga def ne juróomi weer bu ñu yóbboon ñii ñëpp ci tool yi ñii dañuy bay leen mboq ñii bay leen ceeb ñii bay leen dugub ñii bay leen soble après Sénégal nu muy mel équipe bu nekk équipe bi ñaata équipe la ñaata équipe ñaata équipe nawetaan bu nekk Sénégal équipe yëpp ñu utal leen tool 4 kilo 4 hectares ñu ne bàyyi leen kon bu nawet bi jeexee Sénégal fu ñu jëm waaye xoolal lii bu nekk bu jeexee coupe boobu la lay jox coupe bi lan la du dara wenn weñ bu xamaat la weñ bu ñuul weñ ak ay mayo ah équipe amay bor xale jigéen ñi ba ëmb góor ñi nekk ay tuxkatu yàmba banditisme wala agresseurs yi li ñuy def bu marché yi tase li banditisme rek lay yokk maanaam li tubaab yi ñooñu koy ñoo koy naxee jullit yi dëkk jullit yi rek moo am lii dëkk jullit yi moo am ay nawetaan ay làmb lii dëkk jullit yi rek tubaab yi ñooñu koy naxee pour duñu avancer duñu yeew pour duñu liggéey nga defe ne lii ku ci yenn fanaan ci di nga def fajar jàkk ngay biddanti ngay defee sa yaram tas wala lii ba kay dafa jot africain yi xam ne xam-xam kenn moomu ko chinois yi dégg ngeen ñu ne ñoom ñoo gënoon yaafus ci àdduna wala te ñoo fi ëppoon mais tey chinois yi détourné nañ monde bi ku mu neex ku mu naqari li ngay def lépp ñoo koy defar ku mu neex ku mu naqari lépp léegi sax gars yi dañuy bàyyi seen dëkk yi dem ba Chine liggéey ba pare def ci seen marque daal di ñëw nga defe ne du chinois bal jóge nañ sax seen dëkk ñëw suñu dëkk yi te xala bu ñuy ñëw du ñu naanee dara seen loxo kese lépp ci ñun fii dañuy jël liggéeyee ko daal ñu koy delloowaat ñun ñu toog rek di football rek bu ñu footballee match bi tas ñu dem soirée bu dimanche jotee ak samedi ñu dem làmb ba kañ dëkk yu mel noonu nan la ñuy avancé dëkk yoo xam ne foo kese ban dëkk ngeen gis ñu foo ba avancé ban dëkk amul fenn ci àdduna ban dëkk ban président ngeen gis mu nekk mbër waaye un jour viendra Sénégal di ngeen ko am président mbër ministre mbër ay député mbër ay mi waxoon naa ko fi gars yi di ko weddi ngeen jekki-jekki am ministre musicien wala ah amuñu fi ministre musicien lan la mën bañ bañ jox bañ def ko ministre musique wallahi bisa ngi ñëw mbër yi ngeen di gis xëccoo mairie yi gañe xëccoo présidentielle gañe billahi wallahi bisa ngi ñëw mbër yi ngeen di gis danañ dem élection nit ñi woteel leen su boobaa nag ku amul doole tay nga dee waaw ndax xam nga mbër amul xel doole rek lay jaay parce que bu amoon xel du nekk mbër li tax mu nekk mbër mooy amul xel waaw su amoon xel du nekk mbër ku am xel dëgg-dëgg ñooñu yàlla naa inna fi inna fi ixtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albaab gis nga la ayatin bu doon xalaat man lu tax yàlla bind ma est-ce que yàlla daf ma bind pour ma ngemb ma nekk ci stade bi di sotteeku soow déedéet ngay xalaat ne man yàlla daf maa bind li li amrin azim mbir mu rëy kon doo ko nekk mu ko ñàkk a topp yàlla ñàkk a topp yonent lim ñuy jural mooy musiba naarullaay te xoola yàlla loolu la wax loolu moom mooy texe wa zalika loolu dugg aljanna topp yàlla topp yonent alfawzul azim mooy texe bu rëy boroom xam-xam bi nee na bu ngeen jàngee alquran ba yegsi aaye fu ñuy jeexee mu ne bàyyi leen xel aaye bi fan la jeexee wa man yuti illaha wa rasulahu yudxiluhu jannatin tajri min tahti al anhar xaalidina fiha wa zalikal ñun ñu toog fi lan lañ bëgg lu al fawzul azim yàlla nee na ku def li am fawzul azim kon lu fi des xoolal beneen aaya bi yàlla mu ne wa man yaasi llaha képp ku mooy yàlla yemu ci de wa rasulahu mu mooy yonent yàlla bi wa yataadda muy jalgati hududahu frontière yàlla yudxilu yàlla dina ko dugal naaran safara lii moom loolu ñu naan texte sans commentaire moo nekk képp ku mooy yàlla mooy bañ a taf li yàlla wax yemoo ci nga mooy yonent yàlla muhammad nga lànk bañ koo topp bañ a topp li mu indi dafa ne ñeneen li ñu indi moo gën li yonent yàlla muhammad indi nga ne waxtu wi la ñuy julli te yonent bi dana julli nga ne non non ñoo amee beneen waxtu bu ko gën ñu ne la yonent bi dana ne woor weer woor heure bi lay tàmbalee nga ne non non man du doon ñun lañ dogloo ndax ñun diw ah yonent bi dana nañ julli nga ne ah man de du ma julli yonent bi dana woor nga ne ah man de du ma woor lu tax yow loolu la doo woor yow nga ne ah ñun ndog lañ ñu laaj ku la ko laaj ku la wax bàyyi julli yonent bi moo la ko wax yàlla moo la ko wax ñu ne la frontière yàlla bi fii la yem yàlla nee na góor ak jigéen buñ joxante loxo nga ne ah kii kon mënu ma loolu de damay joxe di akolaat ñu ne la yow bul joxe loxo ngay akolaat màkk ngay dem gis ujaaj ak àllaaji ajaratu ak àllaaji bu yàlla ajaratu na àllaaji ma billahi lisi lahi la mun naa ngay dem gis alla àllaaji yi di akolaat bu ñu simmee armal yi ba ba sol sol yére yi bisu tabaski xam nga dañuy simmee ku watu simmee ku sol yére yi nga gis kuy akolaat defoon nañ ko daaw fekki déwén subhanallah ci ñoo xam ne dañ leen ne woon bu leen joxante loxo ñoo xam ne dañoo aj dañoo aj aj aj aj sa ta ta ta Sénégal boo fi amee imaan sa xol bi day metti foon rek sa xol bi day métti boo nekkee ci kër yi sa xol yi day métti nga dem ci mbedd yi sa xol yi di métti nga dugg ci oto yi sa xol bi di métti nga dem ci liggéeykaay yi sa xol bi di métti foo dugg sa xol bi da jàkka sa jàkka jàkka da ngay nekk ci ginnaaw imaam mu ne allahu akbar sa xol bi di métti billahi wallahi taala
semaine bi bëgg dem dama dem enceinte suñu jàkka ji foofu paa boobu ba ma juddoo ba ma juddoo laa xam muy jiite jàkka ba fa yi ma dem fekk muy jiite mais timis bi mi ngi jàng fatiha mais fatiha bi soo teelul yow bu baax doo xam kii li muy wax après bi ñu pare man sama xarit waa yéen ba ah yaa waaye moom jàkka ji
gis nga mooy li ma la foo dem léegi sa xol bi te nopp yi li pare nopp yi ñàkkul su juumee soo ko kiwee du la dégg ilimaan boo xam naa fal force laa fi nekkee fal force fal force laa maa fi ngi nekk ba nekkee dee rek force waaw dafa bën diine la
waaw dem nga ba sa sa làmb kii ba say nopp ñàkk moom yonent bi nee na innama axaafu aleykum aimatil mudillin li ma ragal ci yéen mooy ay njiit yu réeralaati loolu moo am tey ci àddina bi ay njiit yu réeralaati da ngay xool diine ji ñu koy jalgati daf lu leen neex mu leer na ne lii sharia daf ko tere nit ñi di ko def lii sharia bëgg nit ñi di ko def te xam nga lu garaaw mooy ay, gis nga loolu ñu ne sharia du da koo tere bu ko kenn def yow nga bàyyi ko yow yaa am problème ah yow mi ko bàyyi yow yaa am problème de fi mu nekk nii boo duggoon ci stade bi léegi nga ni amal leen ma rajo bi nga ni may dem ci. asalaamaaleykum mbokk yi tee ngeen ragal yàlla gars yi dañ lay cëppil sànni la ci ginnaaw mur bi kii waay kii kii fu mu jógee yow kii ku ko bàyyi muy wax fi billaahi wallaahi taala nit ñi dañoo dem ba léegi bëggatuñu yàlla nee na yonent bi nee na même ci rajo yi ci rajo yi da ngay dégg koo xam ne daal ii sama rajo moom bu ko bàyyi fii rek xam nga kum sa fan lañ jëm waaye ku muus ku am xel mooy ku déglu alquran gis ngeen lii ay aaya la yoo xam ne jarul sax ñuy dem kenn dégg ko firi boo dégloo nu ñu ko waxee rek nga xam ne lii moom yàllaa ko fa ak yonent ku topp yàlla ak yonent yàlla ne naa la dugal aljanna te loolu mooy texe bu rëy waaye ku mooy yàlla mooy yonent yemoo ci xam nga am na ñoo xam dañuy mooy yàlla mooy yonent ba pare di sibile naan maa tey mooy ëmbal xale bu jigéen ba pare islam ne la juróo ko nga ni man mi maa ko jur dem indi xar ngénte waaye wayata adda hududallah muy xëtt frontière u yàlla yàlla da leen woon na juróo xale bi moo tax bar yéen ñi laaj ba ma leen laajoon ngeen naan doomu njaaloo doomu njaaloo du doom bay doon du doom bay doon du doom islam ne la du doom ku dul doom muy doon ne doomu njaaloo kuy bàyyam kuy bàyyam ah kuy bàyyam dafa mel ne fii am na ko wax mu ne ki ko ëmbal kan wala la yow la yow mii ne yaa ko ëmbal kan wala la yow la ni nga def ba laal ci keneen mënut a def noonu moo tax mu ne la du yow ba pare nga bëgg a jël assurance ne man la du yow de dalaa dëgër fit kay nga ni yow la waaye du yow islam nee na du yow kooku nu muy doon ne kooku yaayam lay doon waaye du doonu bàyyi ci parce que amul bàyyi bañ nañ ko ba nañ ne doom bu amul bàyyi amul bàyyi mooy yàlla ak yonent bi rek ëpp na waaye waa ji wa yataadda muy jalgati allahu akbar xuduudahu frontière yàlla lépp la xët lu mu fa fekkoon lépp la buddi sànni daan ne bu ñu kenn tànqal bu ñu kenn eh yokkal musique bi yow nu jóg ci kaw waay waaye ñu naan yàlla yàlla bismillah gars yi yokk musique bi tëm dégg waa ji waaw waaye waaye yow xoolal bu ñu kenn rey ñun dañuy dund fi àdduna la dañuy dund wala gars yi di wax de boo leen bëggee tere dara ñu ne na xumb waay yokkal affaire bi ah naan waaye fa araam ban araam mooy yooyu langage yooyu lañ lay jox moo tax borom bi ne képp ku def lool na nga yëg mu ne yudxiluhu dinaa ko dugal naaran safar yàlla boo ko dugalee nooy def mu ne xaalidan fiiha daf fay sax éternellement gis nga waa safara bu mu duggee safara dañuy yuuxu ay at ay siècle di yuuxu xam nga lu ñuy wax yaa Malick eh yow Malick Malick mooy kan li yaqdi alayna rabbuk waxal yàlla mu reylu ndeysaan safara dafa metti ba ñoom bu ñu fa nekkee dañ naan Malick waxal yàlla mu rey ñu ay waay Malick wool ñu yàlla mu rey nanu yàlla rey waaw xam nga lu leen di tontu ixsau fiha wala tukallimuun waaye waaye sax leen fa waaye bu leen waxatee ak man boroom xam-xam yi nee nañ bu ñu leen waxee loolu danañ fa nekk diiraan li jant bi tàkk ak léegi fay loolu ñaata la dootuñu wax benn baat kon yàpp boo xam ne après boo ko lekkee ba pare dootoo lekk yàpp jeex jar na ngay naan sombi boo xamante ne bis bu nekk nga naan ko maanaam noos boo xam ne après jahannama lay feeteer yi ba ban noos la te noos boo noos yëpp kenn gisu fi noos noos journée bi yëpp ngay noos journée bi yëpp bi nga xëyee ci ndékki ba ba ngay tëdd yaa ngi noos noos yëpp ay waxtu la te noos yi mooy yàlla yi nag ñoo ci gën a gaaw parce que kii mooy yàlla du ànd ak sagoom day gaaw pour bu ko fi kenn fekk naa ko naa ko gaaw jël wala naa ko gaaw def wala wala wala wala xoolal loolu yàqal la aljanna boo xam ne xaalidina fiha abad dugal la foo xam ne xaalidiina fiiha da nga fay sax yàlla mu ne buñ fa saxoon rek sax jàmm la waaye wala hu ñeel na ko moom waa jooju azabun mbugal ci biir safara muhiin bu doyee ndax lan saa yi seen der yi lakkee yàlla nee na ma defal leen der yi bees saa yi safara si buggee fay ma yàlla nee na ma xamu ko kon mbokk jullit yi dëgg-dëgg bu dee am nañu xel bu dee xelu nañu danañu jàpp ci lu ñu yàlla jàngal ak yonentam ñu sori bépp caaxaan li dëkk bi di xumb xumb xumb xumb li àddina bi di xumb xumb xumb li nit ñi di foñ di dem ci ay caaxaan ki am xel moom yonent bi nee na alkayisu man daana nafsahu wa amila li ma baadal loolu ki muus ki muus mooy ki poñe boppam préparé nekk ci ginnaaw dee kookoy ki muus kii toog chaque jour naan ginnaaw dee lan laa fay fekk kookoy ki muus waaye ki am ko mooy ki ne garaawul quoi booy naa ko def rek après dinaa tuub quoi ah garaawul rak tak dem dikk non ay minute la quoi wooy yow ah eh ah baax na ndeysaan gis ngeen fan yi am ngeen benn musicien bu dee kooku bu demee ci yàlla yàlla mu ne ko loolu la liggéey mu ne dafa doon bëm-bëm alhasa wal jawaabu saxi ah kan la yow foo nekk ah bëgguma wax turam de am na daa benn musicien bu dee fan yi Sénégal te gars yi ku leen doon ne dina dee heure yi kan moo ñu waxoon ne dina dee heure yi di ngeen ko gëm gis ngeen dee day bett al mawt yaati bagdatan wal qabru sunduqul amal dee buy ñëw day bett doo xam fan kañ ngay dee doo xam fooy dee ndeysaan benn barki dem lañ may wan ndeysaan benn waaye boo xam dama dem ci kaabu gi sujjóot daal dee foofu sujjóot daal dee ñi dañuy dem ci place bi dee ñii dem ci jigéen ñi ca baar ya dee ñii naan sàngar dugg ci oto accident dee yonent bi ne yubaas kullu abdin ala ma maat ale ku nekk fi nga dee ngay dekkee yowmal qiyaama ki dekkee ci baar ki dekkee estar ak ki dekkee jàkk est-ce que benn ah benn kon yàlla na yàlla jubal yàlla na yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp yàlla na yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori insha allah fii la ñuy taxaw ba talaata ak jàmm insha allah bismillah bu dee am naa question incha allah bismillah amoon nañ ay laaj ci